fii si Touba ba ma leen di loo xam ni presse bi bëgguma ko woon wax waaye wax ko jot na bés ba ba mu amee kenn gisuma sa marche ba ndax maa ngi woon fii si sëriñ bi bi ma jugee si sëriñ bi dama woo Ablaye Wade ni ka sëñ bi nee na comme danga nga jébbalu si moom am na loo xam ni bëgg na jox la ko nga jël ko di ko jëfe mooy bul fexe benn yoon sa bakkan nga koy exposé jamul foofu mu ni ko aussi da nga fexe ba ñi la gëm ànd ak yow dafa am lu la war sa diggante ak ñoom bul exposé benn yoon ñoom it seen bakkan bu leen yóbbu si fitna loolu moo tax Ablaye Wade koroog marche ba àggul place de l'indépendance ban ko teree rek dafa wàññeeku.